sàkk sarax ak dimbali ab jullit ak dakkook bokk bokk nañu ci jëf yi gën a baax bu bés ci baa ba ñu tëral xiraat ci kaw sawara muy rëng-rëngi ba ñépp jàq te tiit yàlla dana digal malaaka mu woote ci kaw ne ana ñi daa liggéeyal jullit ñi ak ñi leen ak ñi daa sàkk sarax nu ne ko noo ngi nii mu neen wéy leen tàbbi àjjana te deesu leen laaj dara benn sarax rekk dees na ca tàbbal àjjana borom kër ga ak soxnaam sa ko doon liggéey ak seen surga ba ñu ko jox mu saraxe ko sarax dana fekk balaa ak deegu ñaaw dana fum yàlla dana far ay ñaaw téef dana saafara ku tawat dana keral borom te bés pénc ba dana yokk wërsëg dana ko aar itam dana woyofal xisaab dana diisal balaa si yiw dana yombal jéggi siraat dana yëkkati ay daraja te àjjana dana gërëmloo yàlla di merloo saytaane ku man nga saraxe dara lu mu tuuti tuuti baax na doonte wenn miskit la sax bëgguñu nag ku koy jox ab saay-saay ak ku koy weesale fi nga nekk te ku ko soxla nekk fa ku amul lu mu saraxe nag ñaari rakkaay yoor yoor sarax la ak subhaanallahi ak alhamdulillahi jéego bu ne sarax la ak buub jàkka ak taal fa ab làmp ak digle lu baax ak tere lu bon ak lépp lu nit joxe ngir ñoŋale ko ab deram moo xam ku koy dóor la wala ku koy xas ak dindi luy lor ci aw yoon moo xam luy taqala wala luy gaañe ak womat gumba ak nuyu sa mbokkum jullit wan ko mbégte ak dimbali ko ci aajoom ak abal ko ak ñaanal ko ak bu woppee nga seeti ko ak yenu ko bu faatoo ak topp ko ak jaale ko yooyu yépp ñoo saraxeem